mu nga fa mu ne ci beneen village la njabootam ne ñemewu faa dem ndax xamul nu muy xoolee jabaram ak njabootam mu ne ma maag sama jom ñemewu maa dellu sama kër xaw ma nu ma fay def samay dëkkandoo gis ma loxo neen xam ne dama daan indi dara amatuma lu ma indi sama taxawaay matatul ma xam ne tekkeetuma dara xam nga liggéeykat bu la wax loolu yow nga jiite leen yow sa bopp doo nelaw doo nelaw boo amee yëg-yëg ci liggéeykat doo nelaw nelaw ma nag te fan yëpp mu may wooy mu métti ma lool mu metti ma lool samay pexe néew te du moom rek mook ay moromam la depuis daaw dem nañu ba léegi mënuñu fexe ba jot te kilifa ga fa nekk mu ngi def ay jéego waaye dafa fekk yàqu-yàqu yu bare dafa fekk yàqu-yàqu yu bare ndax am na ñu dem retraite depuis ay juróom-benni at ay juróomi at ba léegi seen àq ak yelleef mënuñ dab dañoo yuuxu ca kaw ndax kat muñal muñal muñal ah nee nañu xom xol du oom ba ñu di ko bës nit ki moo mën a yëg li koy métti moo mën a xam li li nga xam ne jafe-jafe la am ci biir famille am ci biir njobootam ci biir dëkkam ci biir village am ndax gor gu nekk gor la ku daan joxe sa kër ba xëy ñemeetoo dem sa kër diggi bëccëg di nëbbu di làqu xam nga ne neexul ci gor neexul ci gor loolu nag lañu bëgg mu faju loolu daal na faju ci nii mbaa ci ne na faju ndax nit ki day cotiser la mu joxe nag na yegg fa mu war a yegg bu àpp ba jotee ku nekk jot la nga war a jot mu jeex ñun loolu rek la ñu laaj jërëjëf sawar naa torop ci sa laaj bi ndax ci jamono Covid bi boobu dama yor këyit yépp ci sama kanam chef de la division de l'enseignement privé ma toog ak moom ci benn rajo ñu laaj ko mu ne con euh, subvention yi ñu ngi koy jot nañ ko war a jote waaye subvention yi xam nga ne école privée yi bés bu ne ñu yokk Hmm? bës bu ne ñu yokk ñu jox leen autorisation ñuy liggéey subvention bi bu ñëwee ñu war koo seddoo nag bës bu ne école yi yokku subvention bi du yokku subvention bi du yokk séddale bi gën a néew gën a néew gën a néew ñu di ko supporter ñu di ko supporter ndax euh, bu ma la xaymaalee rek ne euh, enseignement privé catholique day jot cinq cent millions et quelques par année ñu am salaire mensuel enseignement privé catholique 1 un milliard et quelques mensuel xam nga lolu rek doyna na firnde ndax yow subvention bo boko ko lang tay fay la rek la rek qui nit ki duñ la jox nga diko nit ki duñ la jox nga droit né liñ ma jox buñ ñu ko ndax ku enseignement privé de jàppale état ci mission mission où état moy jangal bépp doomu sénégalais c'est sa mission régalienne munu ndax mëtewu enseignement privé ñew di ci japp ndax gone yépp mun yémando yemandoo enseignement privé nak amul doolé gu muy défé gratuité ndax enseignement privé dina fay ay enseignants nguur gi fayuñu ce ne sont pas des enseignants des écoles publiques nguur gi fayuñu locaux yi ñuy utiliser privé yëpp laa wax de ñii dañuy fay loas yow di nga fay enseignant fay gardien fay ndox fay courant fay lempo fay lenen. loolu nag lañ lay jox ci subvention bu matewul foo koy ute doo ko sàcc doo ko sàcc moo tax ñun dañuy tàllalaat loxo may nga ma occasion ñu tàllalaat loxo chef de l'État mu xoolaat subvention bi

mu jox ñu ko mu jox ñu ko waaw sakkan nañu bon comme jubluwuñu statistiques yi waaw waxtaan bi comme jublu ci woon ñu ngi wacc bagage yi ca bitéeg yëpp waaye nag mun naa la wax ne toll nañu foo xam ne parce que jamono ji nga xam ne ñu ngi ci Covid bi doon xaymaa ko wax dañ ko doon yore toujours di ko wax toujours journaliste di ko dégg mës naa leen ko wax fii waaye toll nañ foo xam ne boo calculer li ñuy am ndax booba gouvernement bi daf ñu laajoon li ngeen di am ñaata la ñu def document école bu ne li ngay am enseignement privé catholique enseignement privé laïque franco arabe ak sud des enseignement privé ku nekk génne li ngay am ci recette li ngay fay ak lépp luy charge nga génne ko li ci des lan la buñ ko buñ ko xayma après ci la borom dëkk bi joxe woon benn milliard ba wax ji sore ba sore mu joxewaat ñaari milliards mu li ma wax léegi rek ne ken du du la may nga xeeb ko jotoon nañ ko it waye bañ ko jotee dañu waxaat ba niñ ko jotee ku ci ne lu ci am ndax ñun dañ ne école bu toll nii rek dama leen di xayma Cours Sainte-Marie de Anne élève bu nek amoon nga 1000 francs ci milliard ba bañ joxé 2 milliards mu ne woon élève bu nek am 3000 francs c'était pour régler 3 mois de scolarité 3000 francs donc imagine toi amna école yo xamné élève bu ne 700 et quelques francs la amoon donc mais xam nga kou la may rek nga ne ko jërëjëf dama don wax toujours ne dañu naan jërëjëf rek waye dañu naan président bu làmbaatoon posam génne joxe it ñu ne ko jërëjëf